mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax amati mbégte lool di ànd ak yéen ci seen émission le débat du jour tey le débat du jour tànn di waxtaane mbirum somme de la francophonie ndax xam ngeen ne sommet boobu moom la ñu war a amal fii ci ndakaaru ci weer wi ñu nekk bu ñu demee ba toll ca cat la li tax ñu tànn di ko waxtaane nag moo ne boobu ba léegi njiitu réew mi yëkkati na ci ay kàddu Sénégal yi tamit ku ci bëgg ne am nga noo gisee sommet boobu ñu ne nag nañ taxaw laaj lan mooy francophonie ban njëriñ la francophonie amal réew mu mel ne Sénégal nga xam ne ñi fi nekk ëpp fi di fi yeewoo dégg ñu tubaab waxumalaak nag ba di ko bind. waaye tamit sommet bii ñu nar am ci Dakar lan la nar a jural réew mi mbokk yi loolu mooy suñu waxtaanu tey ñu am mbégte loolu di ci ànd ak Abdourahmane Sow Abdourahmane Sow moom moo jiite kuréel gi ñuy woote ñuy woowee commission orientation stratégie du M23 Abdourahmane Sow maa ngi lay nuyu di jàkkaarloo ci waxtaan wi sëñ bi Diaw sëñ bi Sow ak euh, Diame Diouf Diame Diouf moom ci APR la bokk APR mooy parti wu président Macky Sall waaye tamit conseiller la fële ca présidence de la République Diame Diouf dalal jàmm. maa ngi lay nuyu Moustapha di nuyu Abdourahmane Sow. ñambe ci yow sax la ñuy commencé suñu waxtaan maa ngi wax sànq ne euh, sénégalais yu bëri dañ leen di wax francophonie francophonie mais euh, ba léegi leeral su leerul ci seen bopp moom francophonie kuréel googule est-ce que mën nañ wax ban njëriñ la war a am amal réew mu mel na Sénégal. wala ban njëriñ la ko amal. jërëjëf euh, Moustapha maa ngi lay nuyu di la di la gërëm ci invitation bi di nuyu également Abdourahmane Sow di nuyu sa téléspectateurs yi question bi nga laaj euh, laaj bu am solo la ndax man damay jàpp ne xëy na communication moom moo amul ci mbirum francophonie ndax sénégalais bu nekk yow xam nga ne France moom moo. colo am na ay réew yoo xamante ne coloniser na leen. Ah, ci Afrique te ci Afrique. te bi mu leen coloniser aussi bi muy jóge ci réew yooyu bàyyi na fa làkku tubaab te francophonie lépp lu ñuy def day wër làkku tubaab kon nit ñi au moins xam nañu loolu maintenant na xëy na dañu communiquer wul ci li nga xamante ne. mooy liggéeyam moom mooy liggéeyam moom moo war a nekk njëriñ li jëmale ko ci réew yooyu nga xam ne. France moom moo leen moom moo leen coloniser woon bu fekkente ne yow da nga da nga jël li nga xam ne euh, mooy objectif francophonie dañ la ne euh, francophonie bi dafa taxaw taxawaay boo xamante ne day indi euh, koom-koom ci ci ci biir réew yooyu day indi démocratie ci ci réew yooyu nga xam ne bokk nañ ci ci francophonie day fexe yi tamit la nga xamante ne ay ay conflit la muy aar ba conflit yooyu du am boo waxee aar nag da ngay wax waxtaan waxtaan nag nit ñi ak pays yi nga xamante ne bokk nañ ci francophonie pour que jàmm mën a am ci ci ci réew yooyu. mais pour pour yombal waxtaan wi. est que fii ci Sénégal. Euh, mm-hmm. bu ñu bu ñu jëlee exemple ci suñu réew mi la. Mm-hmm. est-ce que am na lu ñu mën a jàpp takk ko ci Sénégal ne lii moom francophonie moo tax ñu am ko. ah francophonie li mu def ci ci Sénégal lu am solo la dama bëgg a fàttali rek tuuti. ndax boo jëlee ñi nga xamante ne daanaka ñoom ñu créé francophonie ñu leen di wax père fondateur ñett lañ Léopold Sédar Senghor Amani Diori ak Bourguiba donc boo xoolee taxawaayu Sénégal foofu noonu dafa am solo ba nga xamante ne troisième sommet francophonie bi ñu koy organisé en 1989 fii Sénégal lañ ko defee loolu nag cër la boo xamante ne la ñu jox Sénégal beneen bi ci tegu mooy tey jii may wax ak yow ki nga xamante ne moom mooy secrétaire général francophonie Abdou Diouf Abdou Diouf doomu sénégalais la donc na loo xamante ne gëdd bu am solo la jox Sénégal bu loolu passé ñun Sénégal euh, sunu langue officielle maanaam làkk bi ñuy làkk ci kayit yi di ko liggéeyee français la te xam ngeen ne euh, léegi la mentalité yi commencé changer sax mais bu njëkk hmm. boo jàngutoon daanaka nekk doo nekk dara ci société bi donc Euh, français bi moom moo la doon permettre nga nga nga am benn statut ci biir société bi ah. nga nekk nit koo xamante ne Euh, maanaam day réussir socialement donc loolu lu lu am solo la te francophonie bi ak français bi moo ñu ko indil boo ci yokkee nag relation internationale yi nga xamante ne moom la Sénégal ak France ak yeneen ak yeneen euh, Abdourahmane Sow commission orientation stratégie bu M23 mhm. yéen ngeen def benn déclaration boo xam ne liir nañ ko ci presse ci suba ngeen ni euh, def li tubaab di wax interroger wu di laaj ci njëriñu francophonie lan moo tax ñu toog ba moment bii ngeen ni laaj ndax francophonie amati na njëriñ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 ñu contextualiser wax ji euh, Sénégal fi mu toll euh, sur le plan économique par rapport à la crise euh, nit ñi di werante ci lu day ni cinquante et quelques milliards de francs CFA ñu jël ko ci ñaari fan ñuy waxtaan tabax fa benn centre boo xamante ni. dinañ ci ñëw sax ci ci centre. tabax fa benn centre boo xamante ni xëy na mën na dalal suñu ay gan. te ñoo moom fi ay yeneen bërëb yoo xam ne bu ñu ko yeesaloon defaraat ko euh, doon ñu mën a jël xaalis bi bala ñu ñëw ci ci waxu centre bi ak sommet bi ñu yem ci kuréel gi moom francophonie ci boppam hmm? waaw euh, ni ñu ko tëggee jox koy objectif ak hmm. yëpp hmm. ñu ne ñi bokk di làkk tubaab yëpp ñoo ci bokk jamono jii fii jamono toll moment bi nga xam ne réew ci bari ñay làkk araba nga fa ñay làkk anglais fa yëpp lan moo lan moo war a tax ñu soxla di laaj naan ndax francophonie amalati na njëriñ waaw ah non francophonie en fait du ndax fu dañ tollatuñ ci laaj francophonie foog naa dañu ko imposer parce que ni ko monsieur Diouf waxee nii depuis les années 60 euh, Senghor moom moo ko propulsé ni mu ko waxee abi Habib ba jàppale si jàppale ko ci joori jàppale ko ci am na sax beneen euh, roi cambodgien bu ñuy wax Sihanouk jàppoon na ci ñoom du jàpp ci ba ay la yoon yàlla def mu taxaw donc comme ni mu ko waxee aussi mu nekk benn benn organisation bu am doole boo xamante ni dafay dafa am programme économique am programme politique am am une organisation administrative administrative boo xamante ni dugg na lool ci réew Afrique yi ba nga xamante ni maanaam imposé na leen en tout cas yenn type de rapport yoo xamante ni fi mu nekk nii Sénégal mënatu ci génn donc tollatuñu fu ñuy bëgg fu ñuy bañ. donc su ma la déggee francophonie ñun tànn nañu ko dañ ñu ko imposer. dañ ñu ko imposer comme nit ñi imposer imposer eh, colonisation bi ñëw suñuy dëkk nangu suñu ay dëkkuwaay imposer ñu la langue parce que bu ñu fàtte ni que amoon na ay jamono eh, defoon nañu fi benn genre sondage sax dans les années quatre-vingt. pour ñu bàyyi langue française bi di jël suñu ay langue nationale pour dugal ko ci école yi parce que gis nañ ni malgré cela doxul woon donc ñun amuñ ci sago organisation bu am doole la. France di ko piloté ak ñoom Canada ak ay Belgique ñuy jël seen alal tamit il faut suñu économie di ñu may ay bourse di dugg ci éducation bi et tout ça fi mu nekk nii ñu nekk francophonie dañu jaxasoo ba nga xamante ni tollatuñu ci bañ ak bëgg mais nag am nañ sañ-sañ wax suñu xalaat par rapport ak sommet bii ne vraiment xaalis bi yéen ngi wax tamit ne euh, Cheikh Anta Diop moo moo ko wax hmm. que nii kenn du euh, développer réew ci langue jàmbur ci làkku jàmbur français bi nga ne dañu ko imposer est-ce que kon finalement euh, francophonie bokkul ci li téye suñu réew yi pour ñu ne li ko téye parce que am na hmm. en fait nos rapport avec l'Occident ou bien la France c'est gagnant-gagnant quelque part hmm. parce que bu dee sur le plan économique booy xool ñoom li ñu investir boo dellu ginnaaw tuuti xool ce que représente l'Afrique sur le en tout cas sur la balance économique mondiale. 0,1 mm-hmm. te ñoom Afrique du Sud ñoo xaw a am doole. moi je pense que ni quelque part bu dee Sénégal. Mm-hmm. du ma ne on a plus intérêt en tout cas ñu ànd ak ñoom. mais situation bi imposé nañu ko. wax dëgg yàlla. imposé nañu ko de tell sorte ba nga xamante ni mooy li ma la wax sànq. sago amatu ci type de relation yi dugg na trop. c'est vrai que Cheikh Anta Diop wax na ko on ne peut pas développer en tout cas un pays sur la base d'une langue étrangère et ci biir waxtaan bi di nga gis réticence yi Sénégal yi am par rapport à la langue française fi doole noonu wax d'accord kon daal su ma la déggee ku ñuy diri doo taaw fu ñuy dóor sa ndox alors Ndiamé euh, Diouf wax nga sànq ci sa biir wax nga ne bokk na ci objectif yi ñu dénk francophonie mooy régler ay waxtaan ci ay conflits mhm. ñu gis ne ay conflits yu bari mi ngi ci am ci ñi ñu ciy gën a dégg mooy lu mel ne lu mel ne Ouya ci dans une moindre mesure mais francophonie dafa mel ne dafa absente trop ci yooyu est-ce que euh, francophonie euh, ña amul ak euh, ñàkk jeexital gu mu am ci objectif boobu doon aider africain ci yenn conflits yi. waaw li dama bëggoon. parce que gis francophonie mu régler problème ci suñu réew yi moom raar na. waaw loolu xam naa dinaa ci ñëw léegi mais dama bëggoon rek préciser tuuti. Mhm. ndax sama naataango Sow dafa ne francophonie bi dañ ko imposer. waaw ñun colonisation bi lañ ñu imposé colonisation biñ ci nekkee yàlla def ñu jàng ci français bi ñu pareel nag euh, ñi nga xamante ne jàng nañu français ne comme nag moom nañu sunu bopp ñun naka la ñuy assumer avec tout en toute responsabilité li nga xamante ne jàng nañ ko muy la langue française xam nga am na différence. cest dire francophonie bi que ah. tubaab yi leen yar waaw mais mais bi en fait. assumation responsable la. de la langue française wute na ak loo xamante ne dafa ñëw ñu imposer la ko. parce que c'est vrai bon colonisation bi dañu ko imposer mais nag langue bi fi mu nekk nii France moomatu ko Sénégal moomatu ko euh, làkku ñëpp la. donc lakk boobu nga xamante ne ñun ñoo ko moom fi mu nekk nii naka lañ koy assumer en toute responsabilité pour mu amal ñu njëriñ loolu en fait moom moo nekk conceptu francophonie léegi nag boo xoolee boo xoolee ci ci njëlbeen mhm. francophonie dafa nekkoon loo xamante ne promotion euh, de la langue française mhm. euh, diversité culturelle maanaam ci culture daal ci wàllu cosaan ak aada foofu lay accès woon ñu dem di dem di dem ba 1989 euh, daanaka ci sommet Dakar bi amoon daanaka foofu la vole politique bi commencé dugg vole politique bi nag boo gisoon mu mu dugg parce que jamono yooyu dafa amoon ay crises yoo xamante ne ñu ngi doon éclater wu un peu partout à travers le monde organisation boo xamante ne toll na noonu warul toog rek di wax ay affaire culture mm-hmm. mais war na gën a impliqué wu ci li nga xamante ne moom mooy doxal euh, monde bi moo tax ñu vole euh, politique bi dugg ci vole politique bi nag li tax euh, à mon avis francophonie bi aussi am des mooy boo xoolee historique bi c'était pas destiné à ça beneen bi ñaareel bi mooy aussi organisation yooyu ngay wax ne dañoo am doole di peser ci décision yi aussi problème de resource la problème de moyens la moo tax ma jàpp ne instant bi ñu toll nii francophonie bi war na développer le volet politique consolider ak yi mais aussi nag ouvrir une large fenêtre ci wàllu économie. kon daal d'accord te boo xoolee wàllu économie boobu wàllu économie ak conflit am na ci ay euh, wàllu surtout surtout wàllu économie boobu. ci la ñuy waxtaanee quinzième sommet de la francophonie danañ ci waxtaan bu baax a baax ndax gis nañ ne war naa continuer ci loolu suñu réew yi très souvent boo leen wax ci waxu langue wax leen ci waxu culture yooyu li ñuy wax rek mooy lan la ñuy indil lan la ñuy indil boo ko waxee mooy si wàllu économie mhm. euh, tey jii euh, nga ne francophonie dina ci dinañ ci waxtaan pour xool mhm. volet économique yooyu mais toujours est-il que d'accord nañ que ni ci si volet yooyu moom francophonie am na ci ay ay limites yu ñu ñu ñu wéy ci waxtaan wi yéen ngeen wax ne euh, ci réew moo xam ne fukk euh, téeméer ñoo jël fukk rek ñoo ci mën a liir wala boog matu ko sax di liir di bind français bu baax a baax. Mhm. est-ce que kon du raison de plus pour que ñu gën a doxal francophonie ci réew ba ñëpp mën koo làkk wala da nga yaakaar ne dañ ko fi war a bàyyi te seeti langue boo xam ne ñun ñëpp danañ ci mën a ànd di ci bind di ci wax. waaw mooy fi fi nga tëjee léegi rek. Mhm. nee nga ku ñuy jiri du taamu ndogam fa muy dal. Mhm. bu may wax sànq imposé euh, comme ni mu ko waxee effectivement. il y a quelque part quand même euh, un dictat. Hmm. parce que non seulement ni ma la wax sànq dañu ñëw nangu suñu suñu dëkk imposer wu fi imposer ñu une culture imposer ñu vraiment une forme d' organisation boo xamante ni il fallait ñu adopté ko. mais sur le plan économique boobu aussi y a y a un type de rapport euh, vraiment yoo xamante ni séq nañ ko ak ñoom bu ñu fàtte ne que bi ñuy def sommet bi en 89. Ah. Euh, du Diouf nekkoon fii euh, pour 35 pays africains yu bokk ci ci ci francophonie dañ annulé seen dem. bu ñu fàtte aussi ne que par l'entremise de Mitterrand euh, le conseil euh, de sécurité de l'ONU intervenir na par rapport à l'apartheid te loolu yëpp ci liggéeyu francophone moo taxoon type de rapport boobu dafa dem ba nga xam am doole ba nga xamante ni dépendance daf cee am te maa ngi koy wax sànq boo seetloo état bu le français au Sénégal euh, am na benn structure bu ñuy wax fondation le centre linguistique appliqué ñi ngi ko créé après 1961 bi ñu ko créer dañu doon def la promotion de la langue française n'est-ce pas di def ay ay ay ay ay ay ay rencontres euh, éducatives def ay rajo scolaire et tout ça mais bi ñu demee ba 1964 mm. euh, dañuy def benn euh, sondage 78 pour cent des des des hommes mm. dégguñu tubaab binduñu ko. quatre fii ci Sénégal 98 pour cent des femmes dégguñu ko làkkuñu ko bi ñëwee ba 80 81 mi nii on a tenu des états généraux de l'enseignement et la majorité des des participants avaient quand même euh, demandé à ce que ñu jël suñu ay langue nationale intégrer ko dans les écoles plutôt que le français parce que évolué wul le père fondateur on peut dire que c'est Senghor il parlait de de de de rencontre franco francophone oui. donc moom am na ci lu mu ci liggéey lu bëri ci wàllu culture ci la wàllu promotion de la langue ñu ñëw à un moment donné le premier sommet en terre africaine Euh, après Addis après Niamey bi ñ koy bi ñu koy inauguré en en en mille neuf cent le 20 mars 1960 à Dakar la ñu ko tenir euh, n'est-ce pas en vingt 89 Abdou Diouf indi fii vraiment ay ay avancées par rapport ak suñu ay relations ak tubaab yi en 2002 ñu jël ko. teg ko ci bopp euh, organisation bi ba suñu joon yàlla tey. donc c'était pour est-ce que eh, Abdou Diouf moom Abdou Diouf moom dalaloon samay bi Dakar samay wu Dakar bi 89. nga ne 2002 ñu teg ko mu jiite ko. Hmm. boo 2002 ba léegi daanaka euh, fukki at ak lu teg la. Hmm. est-ce que ci ci sa jàngat gis nga fi loo xam ne moom Abdou Diouf. Hmm. def na ko lu ñu mën a jàpp ne lii moom ci bilan la bokk te am na njariñ waaw ba mu jiitee francophonie ba léegi. xëy na fi mu nekk nii. matériellement doo ci mën a daj mais nag mais nag mais nag mais nag <laughs> sur le plan de du développement local teg nañ ay ay ay cadre de de soutien de financement yoo xamante ni dañuy jàppale les populations rurales loolu moom ci suñu ay jàngat gis nañ ko ci dinañ may ay bourse tamit parce que am na fi ay institutions yu bëri yoo xamante ni ci àdduna bi francophonie moo ko d'accord alors Ndiamé Diouf ñu wax kon ci sommet wu Ndakaaru bi bi nga xam ne moom moo war a am nee na 29 30 novembre su ma juumul euh, ñu bëri dañuy wax ne Euh, sommet bi li tax président Macky Sall def yëpp pour dalal ko ci Ndakaaru moo di ne euh, Abdou Diouf ba mu fi nekkee amoon na sommet francophonie ak sommet ba bam euh, Abdoulaye Wade ñëw moom amit am sommet OCI ab président Macky Sall ñëw moom il faut mu am sommet loolu moo tax ñu ne dakaar na dalal quinzième sommet bu bu bu francophonie fii ci fii ci Ndakaaru alors suñ dee xool ci li tubaab di wax de manière concrète est-ce que sommet wu Dakar bi am na lu ñuy lu muy apporter suñu réew mi la dina apporter lu bëree bëri. muy lan mais laata loolu. gis nga euh, problème mu national hmm. dama bëgg aussi ñu def ci benn prudence mu am ci prudence. waaw parce que tey jii li ñuy wax langue national nekkatul tey jii ñu toll ni li ñuy wax langue national hmm. bokkut ak li ñu doon wax langue national am na ñoo xamante ne ba ñu juddoo ba léegi français la ñuy làkk. Hmm. français lañ namp français la ñuy làkk bi. du ay sénégalais. di ay sénégalais. 2 pour cent de la population. waa waa bon xam nga 2 pour cent. wala 1 pour cent l' am na existé na. donc ñooñu tam bu fekkee ne da ngay xalaat ci warum langue nationale doo leen exclure parce que ay sénégalais lañ. moo tax ma ne ci langue nationale bi je pense que ñun ñëpp war nañu xoolaat. Hmm, bi biñ ci am. concept bi voilà concept bi concept bi ñu tëggaat ko. Hmm. de la même manière tey jii euh, francophonie juróom-ñaar fukki réew ak juróom-ñaar. bu ñu bokkee ci francophonie gëm naa ne te jàpp naa ne war nañu aussi tëggaat seen relation buñ ko tëggaatee intégré yu ci bari euh, pour ñëw ci ci ci ci sommet francophonie bi mhm. euh, xam nga bi bi ko président Macky Sall mhm. di waaj naan dafa bëgg a def centre de conférence maanaam nit ñi sax am na ñoo xamante ne dañu yaakaaroon ne lii moom ay gënt la président Macky Sall daanaka moom rek moo nekkoon gëm la loolu mën na am à l'arrivée lan la ñu am am nañu benn centre boo xamante ne centre de conférence internationale nekk ca Diamniadio structure moderne intelligente avec des équipements de dernière génération loolu nag ma jàpp ne euh, président Macky defalu ko boppam mais sénégalais yi la ko defal ndax bu fi jógee itam da ko fiy bàyyi nit ñi di ko jëriñoo te njëriñ li ci war a mën a tukkee xaymaa gu ñu sax ni mu toll waaye fii ñu toll nii li ma la ci mën a wax rek tey am na ay conférence internationale yoo xamante ne ñu ngi am un peu partout dans le monde tey jii centre de conférence bi taxawee na taxawaay boo xamante ne conférence internationale bu ne. mën nañ ko dalal mën na ko mën na ko dalal. à partir du moment au centre bi day commencé di dalal ay conférence internationale day am genre. tourisme d'affaires boo xamante ne day créé wu li li euh, El Hadj conseil euh, spécial El Hadj Kassé doon wax ne industrie code de conférence internationale moom mooy dal di taxaw loolu nag dafa dafa nekk ay moyens nouveau yoo xamante ne concept les slogans quoi <laughs> ay waaw mais mais mais nag mais nag li mu li mu wax nii c'est c'est intéressant parce que day day créer benn concept nouveau boo xam ne c'est le philosophe qui parle au moment où <coughs> dans le monde ñu ngi xool des financement de type nouveau loolu mën na indi ay financements yoo xamante ne ay retombées lay am hmm. ci ci ci Sénégal te lu am njëriñ la d'accord Abdourahmane Sow yéen ngeen ne euh, sommet euh, sommet bi ci boobu ngeen ne du priorité pour Sénégalais hmm. lan moo tax waaw du priorité parce que en fait sommet bi dafa am lu mu lu mu yóbbaale. Mm. muy dépense yi. dépense les dépenses énormes yi mu yóbbaale. 57 milliards pour déversembre. waaw te du ma du ñu mën a sori te du may def l'histoire effectivement. Mm. en tout cas waaw suñu diggante ak ak ak ak ak. Euh, la langue française évolution bi ni mu ni mu ni mu yéexee mhm. yaa ngi ñuy laaj matériellement pour ñu teg loxo ne lii ñoom def nañ ko fi jafe na trop man problème boobu laa am teg loxo ne lii moom francophone jafe na trop pour nga wax ko mhm. nga ñëw ci pays dëkk boo xamante ni bu ñu nax suñu bopp ak euh, vraiment indice de développement yi ñuy jox et tout ça dëkk bi nit ci dañoo ndóol nit ci dañoo sonn man hôpital laay liggéeyee les gens peinent à payer malgré programme de couverture maladie et tout ça nit ci dañoo sonn mhm. xel moo nangul ci réew mu dey ak ni ñuy dund nga jël cinquante sept milliards yi ñuy wax nga def ko ci benn sommet wax na lu am solo lan mooy indi solon bu dee euh, vraiment euh, la nii selon ay programme am bu dee dafa am lu muy sooxat ci réew mi ni ñuy décider foofu ñoom seen résolution yi ñuy jël loolu moo war a nekk retombé mais gis nañ fi monument de la de la renaissance bi mu fi ñëwee bi ko Ablaye Wade defal ñaata milliards la ko defaree lan lañ ñu ci diggoon tey ji évaluer ñaata dërëmu ci dugg ñaata centre grand centre de conférence ñoo am ci àdduna bi yoo xamante ni centre bi dayu leen fii xëy na résolution yi la ñu war a woon xool càmbar et ci résolution yi parce que dina am beneen sommet parallèle boo xamante ni c'est pour les investisseurs privés euh, du Sénégal euh, de la francophonie xëy na ci biir waxtaan yooyu ñoom tamit ñu jéem a naxante ñoom comme que mënatuñu mucc ci ñoom ñu xool nañ la ñuy def gagnant gagnant économie Sénégal gagné si mais bu dee centre bi kese li muy jur je pense que ni waxtaan boobu bu ñu rénové woon King Fahd Palace. defee ko fa tamit. Mm-hmm. li muy continuer continue li muy jur. dina amal toujours njëriñ Sénégal que ñuy jël ay milliards. 57 milliards la ñu wax euh, pour pour tabax centre bi euh, Dia Diame Diouf centre boo xam ne sama wu ñaari fan lay lay lay dalal euh, est-ce que loolu du gaspillage na est-ce que du yàq. xam nga juróom fukki. juróom fukki milliards ak juróom ñaar. xam nga boo ko boo ko waxee nii. Mm-hmm. bëri na waaye. dafa am loo war a njëkk comprendre avant ngaa yegg si foofu centre bi euh, la wax naa la ko léegi bi ko président di xalaat nit ñi dañu waxoon ne lii moom gënt la munta ne rawatina nag bi mu ne centre bi en onze wala en douze mois laa ko bëgg balaa ko bëgg a léegi nag dangay xool loo xamante ne da nga ko waroon a tabax ci ñetti at wala ñeenti at boo ko indee ci fukki weer ak benn hmm. délai yi gën a kii. délai yi dañoo gën a gàtt njëg bi. njëg bi dana yokku. Mhm. performance bi c'est-à-dire équipement ya fa nekk de dernière génération loolu la ñu war a xool ñaareel bi li nga xamante ne centre boobu war na ko mën a indil Sénégal muy ñaar ñetteel bi mooy liñ fay waxtaanee liñ fay waxtaanee bokk na ci ñetti documents yoo xamante au moins danañ ko valider foofu muy déclaration de Dakar. ak ñaari document yoo xamante ne stratégie économique ak stratégie jeunesse loolu bu ñu ko valider ba pare bu ñu mettre en œuvre ces document dina permettre ñu créer plus-value créer ay <coughs> euh, économie yoo xamante ne dana dalaat ci Sénégal ak dëkk yi nga xamante ne sax nekkuñu Sénégal parce que francophonie bi pour ñëpp la boo ko xoolee en termes de formation day day présenter ay opportunités en terme de de richesse en terme d'emploi centre bi boo boo jëlee centre bi bi ñu koy bi koy tabax lu lu lu toll si ñaari junni doomu aadama am nañu fa liggéey de nationalité loolu yaakaar naa création d'emploi boobu boo waxee sénégalais yi ne amul njëriñ xëy na peut-être ñoom dana am nu ñu lay gisee. d'accord beneen bi. Mhm. boo xoolee euh, centre bi fi mu nekk ci Diamniadio dafa nekk benn pas boo xamante ne dafa war a jëm ci pôle économique de jam Diamniadio te pôle bi nag ay infrastructures yu bëri ñoo ca ne rek. ay route euh, am na kii euh, benn benn euh, kii solaire central solaire de quinze mégawatts boo xamante ne dañ ko fa def léegi nga xool ne aussi du point de vue de, du traitement des de des eaux du, point de vue du transport yooyu yëpp day dal di ubbeeku foofu cité du savoir foofu foofu lay nekk. université deuxième université de Dakar bi nga xamante ne dana tàmbali ci lu néew. te war a durer vingt quatre mois foofu lay nekk ak yeneen ak yeneen yoo xamante day créer benn ville bu bees boo xamante day décongestionner Dakar loolu aussi li ñaamee di wax moo di ne centre boobu benn paa rek mm. ci lu war a jur xam na li ñuy woowee euh, pôle urbain de Diamniadio mm. ak la war a nekk yëpp mm. mais euh, ñu bari ñu mel ne forum civil par exemple ñu ngi inquiété ci li ñuy wax les règles de transparence dem ba ci premier ministre euh, Mohamed Boun Abdallah pour expliquer que nii wala boog pour justifier xaalis bi nga xam ne moom lañ dépensé foofu te nga wax léegi ne dafa jéggi dayoo ci réew mu ndóol comme Sénégal gi waaw ça nous désole hmm. ça sorti ça nous désole parce que mooy li ma doon wax sànq rek dans les coulisses que dañu war a dalal xelu Sénégalais yi pour les dépenses publiques il y a des règles qui ont été par le code des marché est-ce qu'il y a eu appel d'offres quel a été le cahier de charge loolu la forum wax 11 mois, c'est un délai court. Ce n'est pas un rêve. Les gens ont construit. Mais dans les normes respectables. Pour man président bi xëy na dafa war a parce qu'il faut pas oublier que ni actuellement am na benn benn étude bu génne ñi ngi évaluer à 250 milliards de francs CFA li ñu jot a def ci ci ci gré à gré ci 10 trimestres Macky Sall. loo jël cinquante sept milliards xaw ma cinquante bien même moins. nga jëlee ko tabax ci centre bi dans des conditions vraiment obscures le forum civil a raison de dire parce que c'est son rôle c'est sa mission que d'interpeller le gouvernement par rapport à l'utilisation des biens publics donc pour ñun wax dëgg yàlla am na yeneen priorité yu fi nekk y a d'autres projets y a d'autres priorités sociales yoo xamante ni tey jii waroon nañ mën a dugal ko foofu pour jàppale askan wi wax na ko fi il me rejoint nee na bu ñu fa dajee am na ay résolution yu ñuy génnee loolu am solo loolu boo demoon King faat Palace mbaa nga dem pour yow loolu jarul tabax centre non no jarul tabax centre même bu fekkee centre dina jur beneen dëkk mais mais dans y des infrastructures très importantes pour une ville yu nekkul foofu xëy na après dinañ ko dabu la construction d'une nouvelle ville dañ koy saluer d'accord lu am solo la ci réew mi mais centre bi du excuse voilà pour dépenser cinquante milliards xaalis Sénégal. ñaam très rapidement pour jeexal est-ce que mën naa am ay garantie wala ay assurance yu ñu joxe ci règle de transparence yi nga xam ne nag du forum civil rek ñoo ci inquiété wu que ni mm-hmm. li am ci jëm a moom suñ deful ndànk dina dina jur jëye ju mel ne li amoon ci annonce wala lu ko nuru en tout man daal li ma xam mm-hmm. te gis ko mooy am na ay structures yoo xamante ne ñu ngi fii Sénégal di saytu mbirum transparence ci wàllu passation des marché structure yooyu impliqué nañ leen ci côté boobu structure yooyu nag comme impliqué nañ leen ñu defar marché bi ba tabax ko man damay jàpp ne tout a été fait sur les règles de l'art marché yooyu ñuy wax ku nekk nag am nga droit interroger wu c'est normal parce que on est dans un pays démocratique mais li ci am solo mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk loolu bu ñu defee seen liggéey gouvernement bi def liggéeyam ba ñu ne liikat jaar na yoon tabax nañ ko si délai yi yaakaar naa loolu amatul coow boo xamante ne war na mën a euh, tax nit ñi tiit ci loolu ndax wax na ko léegi nee na centre bi euh, da am na yeneen centre yoo xamante ne bon xëy na toll nañ noonu waaye dama bëgg a préciser rek ne centre international bu jam ñaayoo en tout cas en Afrique francophone il est le premier centre boo xamante ne. moom moo nekk Sénégal amul feneen. donc loolu aussi lu am solo la. Diame Diouf maa ngi lay gërëm bu baax di fàttali ne yow yaa ngi nekk ci président de la République ndax conseiller nga fa nekkoon ci waxtaan wi tey ak Abdourahmane Sow moom moo jiite commission orientation stratégie bu M23. Mhm. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun di gërëm techniciens yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jàppale saa su ne ci wi la rawatina El Hadj Ndiaye El Hadj Diouf ak maam Sidi Diop émission bi El sama xarit sama rakk mi may fàttali ne ku bëgg a seetaan émission bi ci internet aussi mën nga koo fekk ci site bi ñuy waawee walfnet point com mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun ba suba ak jàmm incha allah ci beneen numéro wu débat